mënu koo jox ak xam. loolu bu ku seet digganteem ak boromam digganteem ak yonent bi. ku seet digganteem ak boromam ak digganteem ak yonent bi. xam ne kenn mënu koo jox ak xam. nga xam ne kenn mënu koo jox ak xam. waaye lu nu ko tële tële tële nag. waaye lu nu ko tële nag. war nañu jéem. waaye war nañoo jéem. ndax jataay bu mel nii. ndax jataay bu mel nii. ndaje mu mel nii. ndaje mu teewlu gu demee nii. danoo war ci sëriñ bi. danoo war ci sëriñ bi. ci waxtu bu nekk. ci waxtu bu nekk. dëgg la àdduna bari nay gàllankoor. dëgg la àdduna bari nay gàllankoor. bari nay gàllankoor lool. bari nay gàllankoor lool. waaye nu fab sunuy waxtu yépp waaye nu fab sunuy waxtu yépp di ko sant di ko sant. di ko sant. cant gu amul app cant ko amul app sant ko dig diggam ak boromam sant ko diggam ak boromam sant ko diggam ak yonent bi sant ko diggam ak yonent bi sant ko ci bopp diggam ak boppam sant ko ci diggam ak boppam sant ko it suñu diggante suñu diggante moom sant ko it suñu diggante moom yooyu cant neexut a boole yooyu cant neexut a boole te it moo nu war itam nag te it moo nu war nag mu ne bu baax baax mu ne nan sant yàlla bu baax a baax a ba booleeg sëriñ bi. ba sunu borom booleeg sëriñ bi. xeeraat nu ci moom. xiiraat nu ci moom. ba bëgg ko. ba nu bëgg ko. yamale wuñ koog dara. yamale wuñ koog dara. gëm ko it. gëm ko it. suñ digganteeg sunu borom. suñu digganteek sunu borom. mu doy nu sëkk. mu doy nu sëkk. biir ak biti. biir ak biti. tey ak ëllëg. tey ak ëllëg. kon sant rek kon sant rek moo nu war. te jé te di ko jéem a nag sant. te di ko jéem a nag sant. jéem sant gi weesuwul. jéem a sant gi weesuwul. dellu ci moom rek. dellu ci moom rek. nekk nekkal ci rek nekkal ci rek ci lim bëgg. nekkal ko rek ci lim bëgg. moom boromam rek la bëgg. moom boromam rek la bëgg. yonent bi mu ko digal. bëggul leneen. bëggul leneen. loolu rek la nekkoon. ci loolu rek la nekkoon. bañ ko xamee. bañ ko xamee. di ko gis. di ko gis. ba biñ ko noppee gis. ba biñ ko noppee gis. kon nag alhamdulilahi rabil alamin. kon nag alhamdulilahi rabil alamin. Mbàkke ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. nee na ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. lii ma wax. lii ma wax. ci sant gu nu war a sax ci sant ko. ci sant gu ci sax gu nu war a sax ci sant ko. dama ko wax rek. nee na daf koo wax rek. waaye noo ko bokk. waaye moog yéen a ko bokk. xam naa ne moo nekk ci yéen. te moom xam na ne moo nekk ci yéen. sëriñ bi rek sëriñ bi rek a nekk ci yéen. sëriñ bi rek a nekk ci yéen. loolu nañ sant yàlla bu baax. loolu nañ sant yàlla bu baax. te jëmee ko kanam rek. te jëmee ko kanam rek. suñu jiite yëpp. suñu yitte jëpp. nañ ko delloo sëriñ bi. nañ ko delloo sëriñ bi. bu ñu ko defee. bu ñu ko defee. dinañ noppalu teeg ëllëg. dinañ noppalu teeg ëllëg. dinañ texe teeg ëllëg. dinañ texe teeg ëllëg. dinañ mucc teeg ëllëg. dinañ mucc teeg ëllëg. defaru teeg ëllëg. dinañ defaru teeg ëllëg. yëngu yëngu baa ngoog. kon mu ngoog yëngu baa ngoog. lii. nee na lii. dañuy jéem rek baaxantal rek. nee na dañuy jéem rek baaxantal rek. waaye dañ ko waroon a def wird. waaye dañ ko waroon a def wird. ndaje mi yëpp. ndaje mi yëpp. dañ ko waroon def muy benn wird benn wird. dañ ko waroon def muy wenn wird. boo xam ne dañuy am pastéefu. boo xam ne dañuy am pastéefu. bés bu set du def ko. bés bu set du def ko. loolu mooy moo doon moo doon moo yey ci sëriñ bi. loolu moo yey ci sëriñ bi. kon nag ginnaaw mënuñu loolu itam nag. kon ginnaaw mënuñu loolu itam nag. nañ bàyyi xel lu mel nii bu baax a baax. nañ bàyyi xel lu mel nii bu baax a baax a baax. delloo ko sunu lépp. delloo ko sunu lépp. delloo ko lépp. delloo ko lépp. di ko yëngul. di ko yëngul. di ko yëngul ci suñu suñu lépp. di ko yëngul ci suñu lépp. defal defal defal defal ko defal ko ko addiya. defal ko ko addiya. baaxantal ko ak suñu cant ak moom. baaxantal ko ak suñu cant ak moom. kon nag Mbàkke jërë ngeen jëf. kon nag Mbàkke jërë ngeen jëf. sant bu baax. sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax. taalibe yi ak bokki taalibe yi. yi nu lii bu baax a baax. yi nu yi nu bokkal lii bu baax a baax. taxawaay bi ak jataay bi. taxawaay bi ak jataay bi. di leen gërëm sant di leen gërëm bu baax a baax. di leen di leen gërëm bu baax a baax a baax. waaw kon nee na mu ngoo ko rek. di sant suñu kilifa yi nga xam ne moom ñoom ñoom lañ fi nekkal. di sant suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi nekkal. ñooñu ñooñu ñooñu tàggat. ñooñu tàggat. ñooñu tàggat ci sëriñ bi. tàggat ñu ci sëriñ bi. wan ñu sëriñ bi. wan ñu sëriñ bi. soññu ñu ci sëriñ bi. soññu ñu ci sëriñ bi. kon ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax. kon ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax. di leen bu baax baax. di leen gërëm bu a baax. di leen di leen noo ngi seen noo ngi seen i tànk. di leen wan ne noo ngi ci seen i tànk. sunu kéem kattan. sunu kéem kattan. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. xamuñu lu ñuy wax. nee na xamuñu lu ñuy wax. nee na xolam dafa sedd guy. yaakaar dolliku lool. yaakaaram dolliku lool. xel gën a dal lool. xelam gën a dal lool. jërë ngeen jëf Mbacke jërë ngeen jëf Mbacke jërë ngeen jëf mbokki taalibe yëpp di len sant len gërëm na ñëpp talal na ñëpp talal yegg ak yegg la rek. nee yegg señ sëñ Fall señ fall mom señ euh, señ Moutala nee ko yegg ak yeggal rek Mbacke waaw na ñëpp nangu ñaan. Mm. amiin amiin amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke <laughs> jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf njabootu sëñ Tuubaa yëpp a ngi lay sant Mbacke dong yëpp a ngi lay sant itam jërëjëf jërëjëf